état du Sénégal def na ay jéego yu am solo pour ñu fexe ba suñu mbokk yépp mën a am ñàkk bi loolu koppar yu bari la ci gouvernement bi dugal te ñépp xam nañ ne tamit euh, Sénégal bokk na ci réew yi njëkk am ñàkk bi gannaaw loolu nag jàpp naa ne aussi te ñu nit li ñu war notamment man sama service communiqué nañ ci bu baax ci rajo yi ak télévision yépp def nañ ay spot communiqué pour ñaax ni ñi ñu dem ñàkku ji ñi ngi rafetlu nag suñu mbokk yi ñu ci bari ñàkku nañ ba fi may wax ak yéen ñu bari ñi ngi continuer di ñàkku ji waaye dëgg gi nag mooy des na bari nañu bari ñoo na xam ne ñàkkooguñu te xam nañ ne loolu ñu naan passe sanitaire tey pour nga voyager à a avant ngay embarquer à l'aéroport faaw nga am passe bi ah loolu nag moo tax président de la république keroog ci jam ñaajo mu yëkkati kàddoom waxaat ministre bi ne ko nañ ci liggéey ñu fexe ba ëllëg kenn balaa ngay dem ci dugg ci yenn service public yi muy ministère yi wala service public yi nga wane sa passe sanitaire parce que tey ci bitim réew boo bëlee man démb rek am na suma xarit mbàkke mba kilifa bu ma woo ne ma mi ngi Italie waaye dafa aw jotul woon ut passe sanitaire tey mënul dem benn restaurant parce que fu mu dem ñu ne ko waneel sa passe sanitaire ah loolu nag balaa muy daal kenn li ñuy ñaan mooy nit ñi nañu dem ñàkku ji ñu fexe ñu defal leen seen passe sanitaire waaw loolu dëgg la xam nga nit ñi moom bàyyeendiku bi du Sénégal rek réew yu bëri la bu jàngoro ji xasee wàññeeku rek ñu bëri dañuy yaakaar ne jeex na waaye ñun liñ ma sa wax mooy jàngoro ji jeexul